ismil ilaa aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa bi kalaami asfi sudoral xaw mi al muminina moxneen an law mi bisimilah barke borom tubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision ma fatul Bichri ñi ngi am mbégte bu baax nag tey jii ñu ngi ci dëkk bi nga xamante ni dëkk bu tedd la dëkk bu sell di Sarsara Sarsara nag mi ngi nekk ci ginnaaw Daaru Musti boo weesoo dëkk boobu nga xam ne mooy tawfiix di dëkkub sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na sunu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeem mbokk yi tey jii ñëw fii di fàttaliku kenn ci jàmbaari sëriñ tubaay waaye kenn ci jàmbaari borom Daaru Muxti yi muy sëriñ Koso Astou Lo Mbàkke eh, ñi ngi ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala sunu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeem di ñaanal xalifaam bi sëriñ muudu Kara Koso sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ñaanal mboolem njaboot gi ñëpp sunu borom defal leen tawfiix noonu la ñuy ñaanale mboolem taalib yi nga xam ne yëpp ñoo aju ci kër gi waaye di ñaanal mboolem jullit yëpp mbokk yi kii ñu jàkkaarloo mooy sëriñ Modou Bopp bokk ci ñi nga xamante ni fii lañ jaroo ci kër gi waaye bokk ci jëwri ñi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk liggéey bi euh, sëriñ Modou tey euh, soo nu doon ñëwal ci taarix maanaam dinu xamal kan mooy jëmm ji nga xamante ni tey moom lañ war a ñëw nag fàttaliku ko ci dëkk bu tedd bii di Sarsara ma di la laaj sëñ Koso ana lan nga mën a wax bokk yi nga xamante ne ñooy seetaan te xamuñu woon sëñ ko Astou asuloo nga taarixal nu kan mooy sëñ Koso Astou Lo alhamdulilahi rabbil alamin wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida laa tafaalu cheyan bi gayri isni fal isnu chartun fi xabuli chani noo ngi nuyu bu baax xalif général de Mouride sëriñ Mountakha Mbacké di ñaan mu yàgg fi te wér waaye nuy mbakke sëñ Abbas Mbacké mi wuutu baay Cheikh Khady radiyallahu waaye di siyaare sëñ Moustapha Absa xalifa sëñ Modou Balla di ndokkeel bu baax Cheikh Modou Kara Koso mii nga xamante ji mooy taw sëriñ Koso Osulo wuutu fi sëriñ Koso Osulo nekkoon di ko ñaan fan wu gudd ànd ak wër sëriñ Koso laaj bi mën nañu koo tënk ki nga xam tey moo woote ba ñëpp wuyu ko mooy sëriñ Modou Kara Koso di doomu sëriñ Kosso Astou Lo waaye di fàttali itam nag jéego yu nga xamante ne way juróom wa sëriñ Kosso daanaka def sëriñ koso itam amoon ndigal ci way juróom wa sëriñam wa kam gëman wóolu ko mooy ay Cheikh Mouhamadou Awa Balla mi nga xam ne mooy taawu borom daal moo ci mu doon ndigal lu bàyyee ko Cheikh Mouhamadou Awa Balla jaara ci sëriñ Kosso Astou mu ne ko koso mu ne ko Mbàkke mu ne ko nang ma toogali ndogu sëriñ Kosso Astou ca pas-pas ba sëriñ Kosso Astou Lo ca muriteem sëriñ Kosso Astou Lo si taalibeem guddi ga mënta nelaw fexe ba togg ndogu jëbbal ko sëriñ Modou Awa Balla bi bët laataa set loolu sëriñ Kosso Astou di ko wéyal ndax sëriñ Modou Awa Balla ko wax kaddu gu gàtt te fees da ko ne koso mën na ko màkkee mën na ko naka fonk bés bi mooy sa bés ndekete yoo sëriñ Kosso Astou di ko def ba fanweer at ak yàtt wala fanweer at yu tofal sëriñ Kosso Astou Lo wàccub liggéey li ci gën a yéeme uh-huh. bi mu uh-huh. bi dellu siwaat uh-huh. doon bés bi nga xamante ne ci la sëriñ ko sasuloo doon yenu ndogo yi da ko jox sa mu daa balla ndikkitu yooyo ba mu ko jox sa Moustapha Absa bés boobu muy bés bu sëriñ ko sasuloo sëñ Modou Kara ko sone kon day gën a yaatal day dàbbali jël ndigal loolii muy ndogu ya jël bésu koso bésu sëriñ koso suloo dëxuñ ko ci biir ne képp koo xamante ne xamoon nga sëriñ koso mbaa nga tib taalibeem mbaa nga di wëlëri lenn mën na am ku leb li wut war a mën a fay bay bor te sëriñ ko sosuloo ñi ko xamee noonu noonu laa ko xamee moom daa doon rahmatul alamin kooku moo doon sëriñ ko sosuloo moom Cheikh Modou Aballa euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen télévision ma fàttul Bichri defe naa ni ubbi bi ko gis rek di nga xam ni kon tey sunu ñëw Sar Zara dina neex lool kon mbokk yi incha allahu taala nii nag lañ leen fas yéene duggale ci màggal gu am solo gi nga xam ni yóbbu ay ndogu la leen li fii lañ koy defere ci Sarsara di ko yóbbu ci ki nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Cheikh Serigne Modou Awa Balla muy Serigne Moussa sa yàlla na fi yàgg lool te wér waaye xam ngeen dana am ay xew-xew lu mel ni bokki jullit yi ak bokki taalibe yi mbokki boppam yi dana ci am ñenn ñoo xam dañ fi ñëw ñoo ñëpp danañ leen wanale ak ñoom waaye ak bokki taalibe yi nga xam ne fenn fu nekk dañ fay def ay daayira danañ danañ leen wanale ak moom waaye lépp lu fi am ci ay xew ba suba na nga xamante ne noonu la ñuy demee Daaru Musti jébbale mooy liggéey bi waaye sëriñ bi ñaanal mbooloo mi loolu lépp incha allahu taala di ngeen ci ànd ak seen télévision ma Fatul Bichri maa ngi ànd ak sëriñ Gora bëgg ceeb bëgg ginaar ci caméra bi incha allahu taala noonu rek lay wéyee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa